bi ñu gis nii bi ngeen gis nii nu mel non bi ñu gis nii mooy Ousmane Sonko boo xam ne amatul état d'âme ci politique c'est-à-dire il fait comme comme comme comme comme comme les comme les politiciens c'est-à-dire politic politiciens yi gën a yi gën a yi gën a doy waar ci langue politique sénégalais bi Ousmane dafa dem ba xarama rek amatul état d'âme ci politique waaye li ci gën a garaaw mooy dafa dem ba il est obnubilé par le pouvoir gis nga pouvoir nguur yàllaa koy joxe. Mm-hmm. bu fekkee nag yow danga jàpp ne ne réew mi bu fitna jotee bu fitna yëngatoo bu coow amee rek nga mën a jaar pour def ko. Mhm. waa léegi yow boo jëree réew mi nooy tabaxee réew moom. Mhm. réew ci dal lañ koy tabaxee. Mhm. ci xel te ñun tegaloon nañ ko yoon boo xam ne. wallahi azim Ousmane bu bu ñu déglu woon ànd ak ñun jamono bi ñu waroon déglu. da doon jël réew mi en 2024 te doo dégg ku ne bukki. mais mais mais Ousmane Sonko bu mu génnee ci coalition jot na ci la ci la gën a am aura. ci la gën a am ay nit. ci la gën a toppee ma ne. Ousmane Sonko. il faut ñu ñu nangu bi mu aussi. bi mu Ousmane Sonko bi ñuy ànd amoon il n'avait même pas trente mille voix. ah mais léegi xool ko léegi. la rek li mu am bi mu ànd ñun ñuy jël suñu alal dik kii. déglu ma rek plus fort ñun plus fort reste amoon. Ah. ànd ak ñun ñi jël suñu dërëm suñu ñaar dërëm fu nekk fu nekk ñi dem fa ci àdduna bi wax kan mooy Ousmane Sonko fexe ba nit ñi wóolu ko ba mu am 16 pour cent de l'électorat 16 pour cent xam nga loolu du ay caaxaan. bi mu demee nag ba nga xam ne ne taxaw na li doon rafet mooy ñun ñi nga xam ne ne ñoo reyoon suñu bopp ba mu doon li mu doon mu àndoon ak ñun combat boobu mais xam nga lu mu def. daf ñoo pousse teg fële ñi nga xam ne ne moom mais dafa am benn vidéo boo xam ne bi ñuy def euh, évaluation moo tax ñu jot na ay noble ñoo fa nekk politique bi ñuy def évaluation élection 2019 élection présidentielle yi. mais vidéo boobu ñun mënoon nañu ko fuité mais buñ ko fuitoon coow li mën na bari parce que boobu Ousmane Sonko li mu yàq ñi ko wër tey. Mhm. li mu leen yàq wallahi azim. la la wax la rek lan la ci woon lan la ci woon grand par exemple non moom laa lay wax boobu. li mu mhm. leen ci yàq. moom ñoom lan la lan. parce que dafa am ñoo xam ne ne. Ousmane dafa demoon waxtaan ak ñoom am na si ñoo xam ne bi muy dem sax man ak moom ñoo ànd. Mhm. bi mu waxtaanee ak ñoom ñooñu dañ ko waxoon ne ko ñun yow la ñuy àndal en 2019. Mhm. am na si ñoo xam ne dañ ko doon chantage xam nga chantage mooy lan. Mhm. dañ ne ko boo faloo li nga ñu jox mu bañ. bi ñuy def évaluation moom am na ci ay wax yoo xam ne waxoon na ko ci xeetu politicien boobu.

gars yi jàkkaarloog gars yi ne leen damaa bëgg ñu ànd ngeen jàppale ma gars yi ne ko ñun ànduñu wax yow Idrissa Seck la ñu àndal ko sax ànduñu wax yow ah dañ na yow la ñuy àndal bi ñu a tànn nga bàyyi ñi nga xam ne ne ñoo xeex ngir yow nga bàyyi ñi nga xam ne ñoo rey seen bopp ngir yow mhm. te li ci gën mooy xam nga mu may metti mooy aucune élégance sëñ bi nga ànd ay nit même bu dul dara mhm. man fat euh, damay jël benn cas Bruno Derneville sunu grand la mais man ak Bruno faral nañ ci ay cas ndax Ousmane Sonko. ndax Ousmane Sonko mais li gënoon rafet sax. mais d'accord mu envoyé message. ou bien mu woo ou bien ou bien mu oote sax réunion mais dañoo jékki-jékki. dégg ko dégg ci dégg communiqué. Hmm, après mu ñëw ne way eh.